Karim ça yow man dama jaaxle yow 700000 laa la laaj lu ndaw amul loo may envoyé lu dul ay 200000 li nga xamante ni moo ko gàllankoor dafay jeex yow Karim xanaa nag maa gisul 200000 nga may yónnee li nga xam ne matuma sax sëlmu Karim nag xoolaatal sa bopp fekkee nag mënoo maa yónnee 700000 yu ma la wax Karim nga ba mate nga dem ma dem foo taa yem yow nag. te nag xoolal da nga xam ni kafuma de kafuma laa la wax cinq cent mille ci des boo ma ko envoyé wul say deux cent mille naa la ko yónnee maa ngi xaar nag fii ay ak ngoon boo ma yónnee ba mu mat sëkk-sëkk dinaa la ko delloo xamal ni man lii faalewu ma loolu man ay sawa bébé yow tamit yow looy mer nii yow xam nga ni fan yi dëkk bi dafa metti xam nga te marché bi dara doxul yow barki démboo njaay rek laa la envoyé fii quatre cent mille pour nga defar sa bopp ah tey nga ñëwaat ma laaj sept cent mille mais su ma la joxee deux cent mille yi te loolu nga xam ne fi mu toll nii dafa metti wuy ma bul mer nag yow yaay sama xarit léegi xam nga def dinaa la envoyé waat cinquante mille dégg mais yow est ce que xam nga sa bopp yow ba ngay wax yaa ngi déglu sa bopp cinquante mille mais Karim yow est ce que xool nga ma ci kaw ba ci suuf yow hee Salimata copain bi un million la ko jox pour mu defaru Aïda nag moom du bay lañ ko yóbbu Dubai pour mu dem defi shopping man ma toog bàyyi ñëpp ànd ak yow tànn la amul looy def nga naan ma ay cinquante mille yow doo ma dimbale ci cinquante mille Karim tel ma sa cinquante mille laa la wax te nga envoyé ma samay cinq cent mille léegi nag bu ma ma de te merde duul waa yow xam la li nga bëgg man mënuma koo def bu dee nag da ngay xool ay ñoom salis ñoom xawma nu mu demee ñoom ki ne ko mënti doon ñoom li leen seen fari defal man loolu sama yoon nekku si man li ma am laa la jox te loolu laa mën ay ñoom saleeg ñooñu sama yoon neew si ñoom parce que xamal tan ñoom seen gaay li ñuy li ñuy joxe dañ koo am man awma loolu noonu bu dee nag ma xeebal samay sept cent mille léegi yónnee ma samay deux cent mille xam nga cinquante mille yi ma la waroon li ma si waroon teg sax dama koy bàyyi léegi deux cent mille yi ma la joxoon laa bu nga yónnee ma ci ni mu gën a gaawee yow amoo tere may wax nga naan da ngay xeeb yow maa la jël defar la ñaata école nga wër nga redoublé bay bëgg a dee sonn say waa kër amuñu dara lu ma am def ko ci yow te simple gel kese nga doo jabar doo dara li wax nga naa da ngay xeeb yow jógeel fii waa yow yow ku soof nga ah yow de xam naa lu fees sa bët moom gaaw na yow boo doonoon jigéen gisuma la mbaaw yow yaa ñàkk fayda yow bañ commencé ànd ba tey quinze millions yu mat sax mu soo koo def ci man yow dimbali ma yow au contraire mala eh, mala for ci mbedd mi defar la ba nga mel ni nga mel yow 500 bi motax day jedd da di rap rap sama kaw ni mel ni yow te nga réglé bala ma lay wax sa bop ñaata nit ñaata goor ñoo may wër ñi di man nan dama lay jox ciabi auto ñi nan ciabi kër ñi nan kayitu kër man nan dedet karim la karim la ndekete yow man ma nga ndekal dof bi la dof bi la yow do ma dimbali yoro dara malay sagal andak yow simple sagar kese nga malay neexal ba ay badul ma lay topp naan la hi sama boogaa bi sama gentleman yow do tous yow yow do dara hee yow day rëpp sama kaw ndax 500000 mille yow go dara yow ay yow sax luma la wax rek damay xeb la ca dess yow yow do ma dimbali yow karim man muno ngawi ngawi ngawi sama kaw bu mu saf ma ndax yow sa sol ba nga doon sol say tiaya say faru mba ak say jamp fi la ma man maa ko dindi ci yow def la nit ba nga mën a dugg ci milieu bi te bul fàtte ni doo góor ndax yow doo sa góor nga wàcc bu ma tax wax